asalaamu aleykum wa rahmatullahi bokk yi ci yàlla ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci barab bu tedd bi ci waxtu wu tedd bi ak bis bu tedd bi di siyaare xalif général de Mouride sëñ Muntaxa di ñaan yàlla may ko ak wér mu yàgg fi di siyaare sëñ Abbas waaye di siyaare itam sëñ Abdou ak bokk yi fi nekk yëpp di siyaare fami Taal di siyaare fami Seck ak Diop ak bokk julli yi fi nekk yëpp di sant seen rafet njort gi ngeen am ci nun te ah, imam Mbacké Sylla mi wax rek ku dégg ni mu introduire xam ne doyoon na sëkk ñu ngi siyaare itam sëtu a joomar bi fi toog cerno góor gi taal nga xam ne moom maamam bokk na ci ñu njëkk a xam yàqu jamono jël ci ay matuwaay moom bokk na ci njëkk a wax ne li kulli qatilin naihatun ya noxnahu walaysa ala diinil muhaymini naa'ihu li kulli qatilin naa'ihatun yanuhnahu walaysa ala diinil muhaymini naa'ihu ajamal futi moo wax ne képp ku ñuy fexeel rey la ba war tëral ba war laa rendi am nga avocat défenseur bu lay défendre di la plaider ba mooy diine yàlla ji ca yooyu jamono ay su fekke woon jamono kon ñu ngi koy siyaare di yónnee suñu siyaar ci sëriñ bi di siyaar itam sëriñ Omar mi nga xam ne mooy sëtë ba maam Amari Ndaak te ku ne xam ne ne maam Amari Ndaak ndaak faal ma ko jur mook dameel a bokk bàyyi kon waroon daa mën a woote dameel mu koy gedd ko li lépp lu yàlla séddalewut soxlaatuma ko kon kooku am na mérite di siyaare itam e, alin Abdoul Majid Diop siyaare boo xam ne man ba may jàngi nga xam ne booba région Louga fa la ñuy wute ay kayit dama jaar ci moom mu ñaanal ma kon moom ameel naa ko àllarba waxtaan wi nag ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo digle ne nit ñi nañu nekk benn waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu di julli ci sina muhammad alayhi salaatu mi nga xam ne moo wax ne jullit ñi dañoo mel ni benn tabax yenn birig yi dañuy dëgëral ya ca des boo ci laal rekk laal nga yépp di ñaan yàlla mu dolli ngërëm ci maam yu baax ya nga xam ne lépp lu ñu am ci bakkan ak lu cher ak seen dund jeexal nañ ko ci de woote ci diine yàlla ji waaye it fexe woon nañ ba ràbb li tubaab di wax toile d'araignée ñu ràbb ko ci wàllu jihaad ci yàlla ràbb ko ci fexe ba réew mi yépp doon ay bokk ràbb ko ci dimbalante bu jotee rabb ko ci taxawal ay centre yoo xam ne ay këri diine lañ ñu boole jàng ak liggéey boole ko ci kenn ku ne mbaax ga sa moroom am nga nangul ko ko ba noppi wóolu ko ba samp fi liñ samp léegi nag problème bi fi mu ne mooy liñ samp ba noppi nuñ koy sàmmee muy ndono ak ñiy raam te bëgguñu jàmm am bokk yi ci yàlla mag ñi biñ fi nekkee démb boo jëlee ca ku mel ne maam maharam ak ña nga xam ne bokkoon nañu moom jamono la leen taxawu diine yàlla ji jaraloon te ku bëgg a taxawu diine yàlla ji danga koy dale ci xamal nit ñi li leen war seen digg ak seen boroom jihaadun bil ilmi ñu tudd ci ku mel ne maam Masamba Thiam maam Masamba Thiam mi ngeen xam xam ngeen ne Fuuta la jóge woon di wër réew mi fu mu fekk xam-xam tasaaroo fa mu samp fa daara bis bu amee ku am xam-xam ba mën a yor daara ja mu bàyyee ko daara ja tuxu noonu la doon dundee yàgg ngeen a dégg daara yi sàmba ci maam sàmba ci am ji ci jolof nga xam ne maam Maaram Mbàkke maam Matar Ndumbe Jóob sëñ ma Lamin Sarr ñoo ñett daje nañ ci daara ji ba sax maam Maaram moom la tudde woon Ceerno Farimata ma sàmba ci am la ko tudde waaye da doon wax ne bu ko kenn wax ma sàmba nañ ko wax no ngir ñëpp xam ne sama tëriñëb tukkandoor bi laa ko tuddee ñu xam ne it am réew ku ko bëgg a defar dangay fexe ba ñu baax ñi jaxasoo ñu gorolante ak ñépp ba tax Sénégal nekk di génn kër foo laal rek laal nga ko ca des boo seetee maam maharam mi nga xam ne bokk na ci dàtt yi nga xam ne dañ ko jox a sekk mi nga xam ne moom ndumbe sekk mi jur mataar ñoo bokk ndey ak baay bi mu àndeek moom jàng ba noppi dafa jël tàntaam may ko ko muy farimata sekk moom ndumbe sekk mi jur mataar ndumbe ñoo bokk ndey ak baay te loolu xam ngeen ne si wut mbaax la mu am ci Ahmad Farimata Ahmad Farimata moo jur Mati Mbakke Mati Mbakke ñu jox ko démb Demba Bunna mu am ci maam Ousmane Mati Mbakke muy woy juru Cheikh Sadji Malick radiyallahu maam Maharam nekk ca Mbakke saa ñànk di jàngale benn bés mu dem ca tool ya bàyyi fi doomam bi mu wax soxna Mbakke aw ñang keroog doomam ju jigéen jooju mooy bind alluwa yi moom mu dem ànd ak taalibe yi benn waay ñëw nuyoo ñaan ndox ñu may ko bi mu naanee ba noppi mu ne soxna si dangay bind mu ne ko waaw mu ne ko ndax mën naa laa dimbale mu ne ko ah xoolal ba xam mu daal di jël àll wu yëpp sukk jum jël rek bu xoolee bind yi dana xam bind démb yeeg bi tudd mu bind àll wu ba noppi tëdd nag ca mbaar ma wala ci yéen ba nañ doon waxe booba bi maam maaram ñibbisee ne soxna Mbacke fu alluwa yi toll mu ne ko alluwa yi pare na mu ne ko ah soxna si ne ko waaw kee tëdd ca ma moo leen ko mu añ ak ba noppi bëgg a mu ne ko yow kat mën a guloo gont xew mu ne ko ah, xale bu jigéen boobu nga fekkoon muy bind te nga ko alluwa yi moom laa la bëgg a muy soxna mu ne ko waaw man maa nga jóge mbaakol jàngi woon fuuta alxuraan ba ñibbisi ñu ne ma bés boo taree ñu may la sa doomi na jaay sa doomi na jaay may xaar su ma demee indi jabar dana jafe mu ne ko amul solo ki ma lay jox dañ koo yar bu ñu la mayoon kooku muy aawo bu ma la ko mayee muy aawo boo ñibbee soo ne ko nekkal ñaareel da koy nangu ndax dañ koo defar dal jël maam soxna Mbakke Awa Ñang jox xaali Amar soxna maam ci xaali Jaxate mu jël mu jël soxna Bintu Jaxate mu jur soxna Mbacke Jaxate mi way jur sëñ Ali Touré kon xam nga ne eh, lu baax dañ koy jënd maam Matar Ndumbe itam li lay won ne dëkk bi ci boppam toile d'araignée la ci ak mbokk Matar Ndumbe ku ne xam na ne Ndumbe Sekk mi ku jur maa leen Malamine ma Demba Sekk ku jur Malamine Sekk Matar Sekk Maxtaar Sekk Sidi Sekk maam di Sekk moo jóge woon Jolof ca Ndioosi dikk sañ ci cuuruur loolu mooy mbokk gi moom itam ñëpp la bokkan ndax Matar Ndumbe dafa barkeel Matar Ndumbe ku ne xam na ne 1701 la gane adduna waaye barkeel gi dafa àgg foo xam ne foo tund ci senegal nit ku baax rek sëtam Matar Ndumbe nga fa doy na ci tegtal rek moo jur ku ñu wax Modou Fakhou Dieng Modou Fakhou Dieng ñu jox ko Issa Dieye mu am ci Njaga Issa Modou Fakhou Dieng jóg Njaga Issa jóge fa dem wóllëranteeg Serigne Pir mu jox ko Soxna Fall Ndaak mu am ci Amadou Fall Soxna Fall Soxna Ndaak Amadou Fall Amadou Fall Ndaak mi jur Soxna Fat Diop mi jox sëriñ Touba mu am ci Serigne Bassirou Mbacké kon mbokk googu foo laal rek laal nga ma tarno bi dund googu ñu doon dundu nag seen dund gi yëpp dañ ko traduire en action nga xam ne fépp fu ñu laalee ab sëriñ wala ñu laal fa lislaam kenn ci ñoom amatul soxla amatul amut soxla laal nga ñëpp loolu la koy tegtale mooy ñoom booba barke ab sëriñ rek ko am pourtant ba tey noonu la mel mbii réew ab sëriñ dong nga fi am barke ab sëriñ don nga fi am man-man ab sëriñ dong nga fi am nguur gu dul jeex kum doon kudul ñoom la nga yore dañ la ko dénk te ragal nga benn bés nga ñàkk ko waaye kenn du gis ancien xalif général ancien président de la république ancien ministre waaye ancien sëriñ kenn du ko gis loola moo taxoon ñuy dimbalante Maam Maharam Mbàkke bi nga xamee ne mbokk daaraam boobu ñuy wax sëñ ma Lamine Sarr yàlla dogal na barke bi rëy ci kajo barke bi rëy ci bawal te xam nga buur buggul borom doole buggul ku am mbooloo ñu fexeel mbokkam moomu dameel yónnee fa na ma baal nag bu ma ne dameel yónnee fa du ma wax turi ndax ñun ñëpp bokk réew mi mm-hmm. te maam yépp tey ñëppay ruj sujjóot ñëppay raam ñëppay wasifa ñëppay wér moo tax demeel yónnee fa ne ko boo demee ne sëriñ bi na ma may na may njël maanaam dépense mu yëkkati juróom mbenn mbaami dugub yu sëf ko yóbbu buuree bo ñu boole koog moom ne ko sëriñ bi funk la ndax koo xam ne dafa la yónnee di la ñaan dépense joxoo ko lu may fukki saa koy pepp wala fukki saa koy dugub ormaaloo ko ca lañ ko indi ay ba yebal fa benn waay bu ñëw wax faraka ba xamees na turwa mu ñëw mel népp taalube xam nga am na jamono bu nekk am na taalube yoo xam ne c'est des taalube circonstanciels mm-hmm. et des taalube événementiels waxtu wu nekk day am yooyu taalube mu ñëw ne day jàng nekk ci kësëriñ bi ndeke mission bi mu am mooy def ko war a assassiner ba benn bés sëñ ma Lamine Sarr nekk ci tóokóor ba di nelaw fekk waxtu tàngoor la kooku tuddee boppam ab taalube fekk ko ci tóokóor ba bett ko rendi ko sëriñ sëpp di ko ñaawlu waaye ku ñëw ci dameel naqarlu ko dameel rey la ba sëriñ su bari faatu ca maam Maaram Mbàkke ne ci Jolof ba mu yàgg mu ne ay wii suñ ci jógut ak pexe sëriñ sëpp danañ jeex ndax sëriñ si mënu ñoo wax luñ gëmut mënuñoo wax nit lu ko neex tëgg àndul ak ngërëmal yàlla hmm. maam nag tekke jolof mbakke saa ñànk ànd ak mbooloo bi mu ñëwee ci gàttal ci tënk rek mënuñu demeel ne ko yow la ñëpp yi jaale te it sa nguur laa ragal ne moo war a jeex ndax dereti wàllu yi ku ko tuur boo gaawu tuub ci yàlla mën ngaa ñàkk nguur ga ma ñaan la ay wi na yam fii koo jàppoon muy ab sëriñ soo ko munta bàyyi ngir yàlla indi naa ci alal lu ko mën a jënd am naa doole xeex waaye duma ko def damel na gurus am gàcce ne ko ayu bi mu tàmbalee ba tey bu ma amoon nit ku baaxe na yow te rafetam xel ayu du àgg fi damaa ñéeg te awma ku ma dimbalee waaye lu ma jàppoon banaa mu ganale ko nag ba mu bëgg ñibbi mu defee fi buur ne ko nag doo ñibbi ndax ku mel ne yow kenn du ko am di ko bàyyi maamaaram ne ko jolof laa dëkk nit ñi yaakaar ma ci yàlla ànd ak man ñii dénk ma seen njaboot ñii jox ma ay taalu bi munu ma dafa wecc jolof di dëkk kajoor waaye soo amoon dëkk boo xam ne soriwul kajoor soriwul jolof soriwul kajoor bu ma ko sañcee danaa fa nekk bañ xam ne maa ko sañc ma bàyyi fa kenn ci xale yi dellu jolof da mel ak moom ba fii Mbàkke Bawal nekk tey mu ne ko dëkk barab bii de soriwul Kajoor soriwul Jolof mën naa nekk village tampon maam maaram sanc ko ci benn bés samp fa Ahmad Farimata li lay xamal ne barkeb maaram nag sëñ Mbàkke bu sa nee na maaram barke bi ma moom rek ko ko am ba addunay tukki yaakaaruma keneen am ko ndax tukki bay wàññeeku sanc ab dëkk dëkk ba nekk juróom-ñaar fukki kër ña des nga ànd ak ñoom ñibbi Jolof loolu maaram rek ko def maaram nag yàlla dogal léppam di baatin ndax boo seetee at mi mu ganee adduna 1911 la 1911 ku ne xam na ne ci baatin am na lu mu ëmboo ku guddoon fan la ndax dund na juróom-ñeent fukki at juróom-ñeent mooy li mu asmaayulaal usna dëkk bi mu sañ ci juróom-ñaar fukki kër la mooy kun moo tax Moussa Kane maam ma haram téeméeri at la dund yu manki men nam at amul fii ndend ma nga ñu rob ca mbàkki goog moo cer na doom ja ak ña bokkoon kanka kon wane na taxawaayu ñoom lu ma sa dal ab sëriñ kenn du nelaw wute naag ñëwuma wax wute naag tey ñëwuma ko wax waaye lu ma sa dal kenn ci ci daara ji kenn du nelaw ñëppay taxaw bañ ca jógee jihaad ñu woote ko ndax yàlla moo ne xam nga jihaad dañ ci àgg foo xam ne eh, je parle sous contrôle <laughs> xam nga léegi jihaad ñun ñuy tafsir buñ ci àggee dañ koy moytu naan jihaad waxuñu jihaad ak jaasi mooy jihaad bil ilm nga dem abbi bayti sëñ Tuubaa ne eh, inni ujaahidu bil ulumi mubtuxan abdan xadiman wal muhayminu saa'ilun te fekk sëriñ bi nee na woon maqa wa maqaalukum aqan fa inni abduhu wa xadimu abdullahi wa huwa alxamidu bu ko defee nag bi nga xamee ne itam tafsir ma ba kon gis nañ dimbalante fi sabilillah bi nga xamee ne dañoo laal kenn ci ñoom ñëpp jóg ba ca des mooy dimbalante ci jihad kero bi nga xamee ne Tafsir Maba woote na jihad ci ci Saalum ci Somb woote na jihad ci Ñooro Maamu Ndëri léegi lañ koy wax booba amul kenn ku des mboolem ku gëm yàlla bi tafsir ma ba wootee jihaad wuy ji bu doon tey fekk na Maamoor Anta ak Serigne bu soobe di waajal jihaad waaye Serigne bu soobee Maamoor Anta Sali daf ne ko jihaad ji ñu doon waajal te yàlla tax jotuñu ko woote ba tafsir ma ba woote su fekkee wuy jiwuñ wuñ ko ànd ak moom ci yàlla la ñuy def ba kan la waaye du yàlla bu doon tey dañuy jël ay taalibe yónnee ko mu ne ko nu ñuy def mu ne ko nan tuxu fekki ko ñu daldi di géntal seen kër ya daldi di tuxu dem Saalum waaye tafsir ma bàyyi bu dikkee kenn ku ne langa nga la nga man la lay jox Mamoor Anta Sali comme fóore la mu ne ko yaay xaadi fekk na Mouhamad Ngàcc Mouhamad Ngàcc Ñas mooy woy juru Alhaji lay Ñas moom fekk mag la menn at la fa am faatu Alaaji Ablaay Ñas ne ko loo nisaroon ci jihaad danaa ànd ak tafsir ma ba mottali njaga fatim jaan jóge njaañu njaga njañ ma xuree ju jóge mbakol maa kumba jóge belal sëriñ longoor sëriñ wajja omar asta jóge jaxas réew ma dikke sinna jóge màkka ma yore ndaa kebe jóge ngiij faal sëriñ ndaraame jóge ndaraame escale ge saalum matu fa laman jóge cuuruur demba naar jóge jóge ndaam matar naar jóge ñomre yuusuf mbeng jóge mbuula abdoulahi dia jóge mbëlëxe babacar xuma jóge ngali xuma daramaan fa kumba jóge ci la daramaan mayora astakan jóge pir boo ne boole ci nag almaami abdul xaadir kan mi nga xam ne bi jàngee ci piir ba noppi Matar Ndumbee ko jàngal waaye daf ko jàngal ba noppi ne ko comme da ngaa a dellu Fuuta kaay dem piir ñu ñu jàngal la làkk wiñ mokkal ndax yow Fuuta nga jëm mu dem piir ñu jàngal ko làkk wi ba xam ko ci biir xam-xam ñu delloo ko Matar Ndumbee ne ko dellul ca Matar Ndumbee mu jàngal la lasraar ndax boo xamul lasraar boo demee Fuuta doo fa yàgg kon nag ñii nag Matar guddul aw fan gis nga li barke bi bari bari taalu bi bari bari xam nga ñaata at la dund juróom fukki at ak juróom cinquante cinq ans la dund turu yàlla wa ñuy wax mu bu moo ko wuyu mu xëy rek ñii benn tabas benn bésab dimanche la leen woo gas suuf ba suuf sa tibb suuf su rafet def cag ñaan kenn ku ne mën a la foo nar a dëkk boo demee sotti fa suuf sa dana barkeel moo tax foyer yi l'islam mënu koo ñàkk ndax ñooy foyer jàng ñooy foyer liggéey ba noppi ak dimbalante moo tax Serigne Touba daan wax ni na ngeen fexee mënal seen bopp ndax ku leen mënal sañal leen ku leen mënal sañal leen moo tax booba ab sëriñ du tàllal loxo mukk ci àdduna ndax wolof ne koo ëmb sànqalam ëmb kersaam kon taxawaay yooyu ñu am ba sañ dëkk yi ci réew mi ñu boole liggéey ak dimbalante ak man seen bopp dañ caa boole nag ormalante al i'tiraafu bil jamil kenn ku ne reconnaître sa morom la ko yàlla may ci ak may ci xam-xam ci daraja évidemment ñoom noonu lañ mën a def parce que kenn ku ne dafa mat lam doon parce que ki mat lim doon ki mat lim doon kenn du ko dérangé boo matul li nga doon ngay am problème ñoom dañoo matoon lim doon mooy tax doomi mbër jàngil bëre ah des na la ñam des na la ñam loola taxoon ñu ñu seen diggante ci relation yi li ñu doon wax toile d'araignée nga xam ne foo laal mu yëngu li la koy xamal bokk na ci saalum nim jaxasoo njombaato nim jaxasoo ak ak fii ñuy wax mbaakol ba boo demee ñi sant siise seen digganteeg ñi sant seen digganteeg ñi sant si nim mel sëriñ jaamal maam abdou siise mañ doon wax abdou abdou awa bokkul ak abdou maram mi nga xam mooy way juru Amar Cissé Pire muy way jur El Hadj Moustapha bañ bëggee jàngi xam-xam ca ca Saalum seen najaay góor gi Malick Dramé Serigne Por moo leen wax ne Saalum gii dafa yàqu kenn mënatu fee jàng xool ci yooyu jamono mu ne Saalum yàqu na kon tey nan la senegal mel mu ne kenn mënatu fee jàng da ngeen di ñëw ma yebal leen ci réew moo xam ne su ngeen fa demee da ngeen fa fekk sëriñ bu mët sëriñ ci xam-xam. ba noppi rafet jukko kaay ma yebal leen mbaakool ci tafsir ma mënant sali tafsir ma mënant sali maa moom ñoo bokkoon di jàng ci bambu ci kër góor gi Bamba Sall dal di bind leetar jox leen bañ agsee yëkkati leetar bi jox ko Mamour Anta Sali wax nañ ne keroog mbégte mi mu am musuñoo gis mu am ko mu daal di woo soxna Anta Ndiaye maam soxna Anta am soxna Anta Ndiaye ñëpp ñu bari soxna Ndiaye Anta Ndiaye wax waaye soxna Anta Ndiaye Mbàkke la ndax Ibrahima Awa Ñang ma ko jur mooy taawam maam Maharam moo ko ne ko nag ñi fi ñëw tey naam ay taalube lañu waaye duñ ay taalube ay mbokk lañ ñu nga jóge ci sama mbokk mu baax ma góor gi Malick Dramé Serigne Por daal ne ko nag buñ xiifati buñ xiif buñ rafle buñ ci lim boo fekk maam Cheikh Anta mi ngi toll ci di beqi mu daal di ti maam Cheikh Anta jox ko ne ko kii dama bëgg nga toppal topp toppal ko àlluwam ji xam nga loolu dara gënu ko rafet ñu am fa ñeenti at El Hadj Moustapha mooy nettali bañ fa amee ñeenti at nag war a dem war a dem ndar ngir yokk xam-xam Mamour Anta Sali ne ko déedéet doo fi bàyyi Cheikh Anta àndal ak moom yóbbu ko ndar nee nañ booba lañ xamoon ne Cheikh Anta dana bëri wërsëg ndax ne li muy nekk nekk xale ci ndar booba taaluba yëpp luñ jaaxle moo leen koy fajal waaw mu ànd ak ñoom bañ am fa ñeenti at mu ne moom day jàll gànnaar ndax war naa gëstu tariixa bi ndax du dugg ci lu mu xamul mu daal di jàll dem gànnaar ba muy dem gànnaar nag mu ne duma ko yóbbaale ndax kii bàyyam daf ma koo dénk damay dellu Mbàkke Kajoor indil ko maam Maamor Anta ba mu ko indee nag fekk booba mi ngi ànd ak maam Abdou Cissé mi nga xam ne mooy woy juru ama Cissé Pire mu ne ko yow doo ma topp ndax yoon wi dafa metti te ñi ngi dogale nit ñi di leen rey te su ma faatoo ci yoon wi nga faatu day metti ci waa Saloum kon yow dama lay dénk Cheikh Sadji Malick daal koy jël dénk ko Cheikh Sadio Malick donc loolu mooy kóllëre rek diggante donc waa Cissé ak waa ci ci diggante maam Abdou Cissé ak Cheikh Sadio Malick ki la moo tax waxtu wu ngeen gisee Touba xewle da ngay gis Maodo da nga koy gis mu ñëw da ngay gis El Hadj Moustapha fi nekk loolu moo doon jëflante gu rafet gi kenn ku ne it wóolu boromam ba sa morom gën laa doy. sëñ Tuubaa ba mu nekkee ci yéen ba war a ñibbi bawal dafa wax ne dafa dajale ñi ñi jaayanteek moom ci jolof ñëpp bañ sukk ci kanamam mu ne leen bu ma kenn fekk bawal ngir tariixa mbaa sharia ñu ne ko Mbàkke dañoo jaayanteeg yow ci yàlla nu ñuy def mu ne lépp lu waay soxla di ko laaj ci sharia mbaa tariixa na ko laaj Alaaji Daawuda Ja ndax maa ngi ma bokk ndey Sëñ Tuubaa ko xamoon nag mbokk la mhm. man silsile bi ma yore dal di dal di boore loxoom yu tedd ya ndax ne dal ne man Ahmadu oh. jaara busu astawaalo ndumbe daanu wala ndumbe daaro daaru sànqe awa dikki kamara faamata sow anta sàll mariama jóob jaay la ja mu ne jaay la ja moomee di sama maam ci mu sow man Ahmadu nag kayra ja mam bokkoon ndey ak baay mooy maami El Hadji Daouda kon maa ngi mooma bokk ndey bu kenn romb di ma laaj Moussa sax tooñ na leen ne almaami Demba Dia ca oore fonde mooy baay ba gan gu fa fanaan naan fonde almaami Paate Ja di doomi baayam ca wurasoo i tukkulóor yaay maamam waaw loolu waaw mu ne mu nag amari jàmm yi maamam nag may seen maam nag yàlla da ko mayoon li jaaba kum ñaanal ñaare nga falu buur moo ñaanal dëcc fëri njóob te ci fëri njógu bam ba mu sonnee ci nguur ak jolof gi dañ ne ko benn sëriñ rek lañ xam ne bu la ñaanalee mën ngaa falu mu daal di takk ay fas dem fuuta mu ne ko nag yow mënuloo falu màggat nga waaye soo amee doom tudde ma ko dana moom kajoor mu njëkk soxna si ëmb ba doom ja ganee àdduna di góor mu tudde ko ëmëri ja mooy ëmëri ngoone ndee la mooy Ngombeen Ngoné Sabel mi njëkk a nekk dameel mu kon jëflante bu rafet bii ñoom moom lañu xamoon waaye nag xam ngeen ne jamono yi ñu nekk tubaab bi moom ak tubaab beeg ñim yar ngeen baal ma tubaab beeg ñim yar ndax tubaab bi bi mu fiy jógee moom it dafee bay ay doomam léeg-léeg nga dégg ñu ne sëriñ si dañoo am doomi leer mais tubaab yi dañoo am seen doomi mu ngoog mu ngoog seen doomi la seen doomi doom waaw mu ngoog seen dañoo am ñoom it daal mu ngoog waaw ko defee nag ñooñu bugguñu këri yi bugguñu sëriñ si nekk benn loolu mission la bu mbokk mi ñëwee moom dana ko leeral ndax loolu seen ak fànn la mhm. waaye daal jëflante bu rafet bii am ci seen diggante te booba taalibe boo am ñëppay sëriñam sëriñ bu ne yaay sëriñu ñëpp te exemple biñ ci am di ko joxe mooy alaaji Abdoulaye Niass ca Kaolack yàlla dafa dogal mu amoon ñaari taalibe yuy dem di gàmm ji ci moom di jóge Cap-Vert menn at ñu ñëw gàmm ba noppi ba mu leen di yebi mu ñaanal leen ne bu déwénee bu leen ñëw ñu ne ko ah ñas ñun dañoo jaayanteeg yow yaa ñu jox salaatul fatiha yi fii la ñuy gàmmoo mu ne leen li ma leen digal mooy bu ngeen ñibbee da ngeen dem ca Cheikh Sadji Malick na leen beesalal salaatal fatiha yi di seen sëriñ bu leen ñëwati ci man loolu it boo ko xoolee tey xaw naa jafe aslëf xaw naa jafe aslëf say bi nga ne leen bu leen fi ñëwati bu ngeen ñibbee sëriñ diw moo leen gën a jege dee leen yem ci moom te mooy góor gi Baara Gassama ak góor gi Moussa Mbeng ba ñibbisee ba ñëw ci Cheikh Sadji Malick mu beesal leen kenn ki ba mu amee doom da koo tuddee Aji Malick moo jur seen xarit bu neex boobu te mën a way ah. ñu koy wax tam euh, dëkk euh, déedéet déedéet déedéet dëkk ah, kër ma daal Tafsir Moussa Gassama góor gi Malick ma ko jur ngoog ah, ko defee nag mbokk yi ñu xam ne léegi nag bi barke amee ba doole am wa suyuuxu xaqahu quwatan ruuxiya wa maddiya xata waqara umul muluk maanaam ñoom fexe woon nañ ba dajale kàttan ci wàllu ruu ba bu ñu waxee ñépp jëf dajale woon nañ alal ba assurer autosuffisance mën a moom seen bopp léegi li des mooy fexe nuñ leen jaxasee rek moo ci des ba noppi nag ñu xamoon lañu am ndax El Hadj Ibou Sakho daf daan wax ne am ko te xamuloo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën ñu toog nag képp ku fi yàlla teg ñu tudde la buur ñu di la contrôler ba ñemewoo def dara te waxtaan ak ñoom influence boobu ñu am taxoon na walla ba tey gis leen yombutoon ndax xam nga politicien fexe ba toog ak sëriñ bi rek photo ak moom kooku marketing la waaw photo woon ak xalif général kooku marketing la moo tax nga gis sëriñ yi fi mujjoon nga xam ne mooy sëñ Abdou Lahad gaynde gi taxawaay yi ñu amoon ku mas di dem ci ñoom dangay ngay waaj yoon wa ndax boo demee nooy wax ak moom boo dikkee ne ko kii de moo yore ndox mi mu ne ko waaye yow mi yore ndox mi yow de sàggan nga lool nawet bi lu tax lu tax lu tax matul lu tax lu tax lu tax ma mu maran te nga te ñu wax ne yaa yor ndox mi nga naan Mbàkke ñun ni ñu koy waxee mooy ñooy ministre nangam ñu ne kii moo yor santé mu ne ko waa yow li faatu ci réew mi yow itam nga te yow yaa yor wér gu yaram yëpp di leen delloo ci wàllu yàlla. ñu doon jëli seen responsabilité bu jotee ndax ku ne xam na ne sëñ Fallou mi fi mujj ci waxiin mook sëñ Ali Touré février 1968 soree wut ak bi sëñ Fallou génne àdduna waaye teewut jël nañ seen responsabilité amul lenn lu mas a xew ci réew mi ñuy seetaan mu yàqu dañ daan wax ci suuf di wax ci kaw léeg-léeg da nga naan sëriñ si war nañoo wax sëriñ si war nañoo wax ñu ne la sëriñ saa ngi wax ñu ne waaw waaye nag sëriñ saa ngi wax waaye léeg-léeg wax ci suuf baax na waaye léeg-léeg wax ci koo baax na ndax yàlla mi ñuy jaamu ku yaru dégg na ko waaye julli yi da koo xaaj yenn yi mu ne wax leen ko ci kaw yenn yi mu ne wax leen ko ci suuf kon léeg-léeg nag ñu wax ak ñiy jiite àdduna ci kaw bañ dégg ko loolu itam baax na ci loolu itam baax na ci mu ngi noonu kon sëriñ Fallou ci at moomu sëñ Abdou sëñ Adi moo ko bindi lettre ne ko las naa ruasa jumhuriyin las naa ruasa jumhuriyin ñun duñ ay président de la république bugguñu ko liñ ama ko gën waaye nag maa ngi lay xamal ne lii di dox ci réew mi jaami yàlla yi ñu dese leen a taxawu yàq gi am ci réew mi suñ ko seetaanee waxuñu ci damaa xawoon maa ngi yow buñ demee ca yàlla lan la ñuy wax yàlla waaw loolu itam loolu itam taxawaay la loolu itam taxawaay la te nit ñi xam ngeen ne suñu Abdoulaye Sy baax bërki démb rek bi mu fi nekkee lu xaw ngeen déggu lu xew ngeen déggu bu ko defee nag li ci desit mooy taalibe yu ñu xàmmee leen liñ doon wax ci be boo xam ne dafa am ay ambition des ambitions dafa am ay ambition yoo xam ne xam na fi doole ne xam na fi ndigal ne xam na fi influence ne su ko kooku dañ ko war a xàmmee ak taalibe bi bi ñëw ngir yàlla ab sëriñ nag du toroxal kenn waaye nag xàmmee ñuy ñëw baax na ci te loolu du tey ndax Moussa Ka nee na woon naafiq yaa ngi dox di raam ngir jamono jàngal ida laqul lazina amanu suñu demee Touba ni rogu a Touba te bu ñuy dox ci réew mi mel ni kooba waaye Serigne Touba mënee su koo nax loolu itam dafa jàll fuñ toll ñu di ko bàyyi xel ñu xam ne eh, am na ñoo xam ne eh, bu ñëwee ceebit ab sëriñ du toroxal kenn waaye nag war naa am luñ leen wax nag ñu xam ko naa am luñ leen wax ñu xam ko hmm. kon la ca des ñu xam ne itam taalibe yi ci seen bopp ak sëriñ si léegi gën a lënte ay tariixa sama tariixa sama sëriñ bu ñu duggee ci biir léeg-léeg waxe nii boo génnee ñu ne la ah ñun dañ doon rafetal rek waaye xam nga ne eh, yow bokkook moom bokkook ñoom waaw ñoom te nag a turqu kulluha ila rahmani muusilatun muslikaha ya jaani Cheikh Saaj Malik ne a turqu kulluha ila rahmani tariqa yëpp ci yàlla lañ jëm muusilatun muslikaha yaa jaani képp ku ko sóobu te sellal ñu àggale la ci yàlla te loolu mag ñépp a ko wax mag ñépp ko wax ndax tariqa yi mi ngi mel ni yonent yi ci wax yi yi lan lañu ñu alxuraan jàngal laa nufarriqu bayna ahadin minhum ngoo duñ taqale kenn ci ñoom ak moroom ma ndax ñépp dañoo jëm ci yàlla su ko defee ñu xam ne it liggéey bi yàlla santaane stratégie dafa laaj Sëriñ Bàmba mi dëkk ci biir Bawal ñi mu amal ay taalibe yi mu am aada yu am ak culture bi am nam leen di wooxe ci yàlla bokkul ak taalibe Cheikh Saaj Malik yi dëkk Ndar déedéet bokkuñu buñ buñ appliquer même pédagogie duñ am résultat parce que taalibe bi dëkk Ndar lim xamoon mooy gourmet yaa ngi fi bu su 31 décembre ñëwee ñu takk leen ñu takk seen photo lumière takk seen guirlande di joxe ay tàngal di joxe ay meew kooku soo ko bëggee woo te doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan du du dégg moo tax mu ne nañ gàmmu bu gàmmu jotee ñu def tànt bu rafet indi girilaan yi takk ci ñuy woy woy yu neex ñuy fottasu ñuy séddale café di séddale meew di joxe tàngal jullit ñi bu julli jotee ñu dajale ay xeer pour def ko jàkk bu julli jotee ñu julli fa ñi fa nekkoon te duñ julli nag julli ñi liñ bëgg mooy fuñ dem duut duutal fa seen jàkk gi waaye du fi amee ñu cay xeex di ca xeex ba am ñuñ ca toj seen bopp ba semaine ba delsee ñu woo commandant ca yooyu jamono ba ñu woowee commandant mu di leen atte ña bokkoon ci xeex ba ñu ci bari dañoo daw ndax ragal ñu tegal commandant taabal ji ci pénc mi muy woote benn Baay Faal di yelwaan laa ilaaha illallaah faal laa ilaaha illallaah faal ba seen mbooloo bi ne ah bisimilah jàmm fee lu fa xew fee lu fa xew ñu ne ko fee daal jullit ñi ñoo fi doon def jàkka def fi ay xeer yéefar yi ne duñ ko fi def tasaare jàkka ja ñu mer xeex ak ñoom ba ñu bari xaañu ca mu ne xaañu lu xew kon tey ñu ne ah commandant moo ñëw di ko régler ah mu ne bisimilah jàmm loolu maa koy régler dal di sànni mbuus yëpp yanu yadoo ba ca birub commande taabali commandant gi mu jël taabal ji ne ko tëj tëj ci taabal ji ne ko monsieur le commandant a ah, bisimilah jàmm keroog bi ñuy xeex fii ngir jàkka ji koo gis boppam toj rek man man mi maa def yaaru fu bon ku boppam toj rek maanaam baal ñëpp man mi maa toj bopp yi commandant ne dënn ba mu yàgg mu ne waaw mais nag alors comme les fous <laughs> se mêlent dans l'affaire comme léegi kën mbir mi dof yi dugg nañ ci nañ ko nañu waxtaan mu jeex rek ñu bàyyi ko noonu parce que dof yi kenn xamu seen affaire te nag daf cee teg ne ko man ku bañ rasulullah yi toj bopp bi rek laa ci xam su ko defee nag euh, imaam euh, Malick Ndiaye su ko doon nettali da naan waaw léegi Baye Fall boobu xëyam moomu. waaw ñaata rakkay naafila la wax ñi mu wax nag farata waaye ñaata rakkay naafila kon l'islam kenn ku ne soxla na la bés. teñ waxtaan ak yow delloo si la teñ waxtaan ak yow delloo si la waaw mu nga waaw su ko defee nag di waxtaan ak yow delloo si la ko defee nag bu waxtu jotee ñooy la ah bisimilah jàmm sëñ Bamba sa sëriñ bi kat 1924 la fi jógee 1927 la fi jógee 1924 sénégalais bu am néegam tabax neexut a gis waaye 1924 la tabax jumaay njaareem ji ba mu àgg 1924 ba léegi jumaay njaareem ji bi birig tegewu ci peinture rek 24 ba léegi mu koy jiiteel boppam di ko jiiteel boppam bañ ne mooy ilimaan ji mu xëy wor sëñ aafe ñoo ko yaay ilimaan ji jiiteel jaamu yàlla yi daal di digle na nañ ma tabaxal jumaay jumaay Tuubaa nag bi mu ko digle dafa mel ne dafa gis jumaa ji ndax daf na wax fir li man banaw bina aha rafia wax fir li man amarahum bihi jamia wali jamii man aanuhum ala bina iha allasi bi fadlika tala daan ne nag wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim asalawaati alxamsa daawan bi akim kon bi muy tabax lu jumaa ji mel na ne da koo gis ndax daf ne tabax bu kawe bii waaye nag mu ne su paree nag damaa bëgg lum taw taw lum naaj naaj nañ bët naaj wi bëtt taw bi dem julli ji kon sëriñ bi dal di wax ne ah buñ la waxee nga ne ah man kat damaa fare woo boor bii rek mm. Cheikh Saaj Malick fare bële noonu mm. ah, ah, sëñ sëñ cana ba fare bële nuy bay tool bi pour daje rek mm. waaye tool bi ku nekk rek yàlla moom toolam bi l'islam kenn mënu koo fare fépp kenn ku ne da ngaa fare fa la yàlla say day su ko defee nag maarifatu takris sulta ruhiya liñ ciy ragalit na nu baal waaye mag ñi démb boo gisee ñu réussir mooy pouvoir spirituel bi dañ ko centraliser pouvoir spirituel bi sëriñ bi da koy centraliser ñëpp bakoog baat bi boo demee cana ba su suñ cana ba toogee ci kaw ñëpp toog ci suuf waxi ñëpp def ko waaye moomin nag bu teraanga ji ñëwee ak intérêt yi mu tasaare leen bàyyi leen boobu noonu la ñu am loola taxoon na ñëpp déggal la parce que nag su la ñëpp bàyyee baat bi baat bi njëriñ la nag da leen koy bàyyee waaye kenn du jël baat jël njëriñ mu ngoog la ca des nag euh, ñu xam ne jàng gi ñuy jàng mag ñi ndigalal yàlla la faqsusil qasasa laallahum yatafakkaroon nettalil ma seen nit ñi seen maam ya bañ xam ne yàlla ma nga fam nekkoon ku nekk fa mag ñene woon yàlla fekk si la waaye nag buñ taxawee naan sëñ Bamba def na lépp Cheikh Saaj Malick def na lépp Aji Omarul Fuuti def na lépp sëñ Canaba def na lépp te tëdd yi nelaw du sotti du sotti ndax sëñ Canaba bu ñëwoon ne yonent bi def na lépp Cheikh maa Malick ñëw ne Cheikh Tidiane def na lépp sëñ Bamba ñëw ne Maharam def na lépp kon doon àgg fii sëñ Mbay Jaxate nee na taxaw naan yàlla mën na lu ne du noonu mu ne te yàlla kat mën na lu ne waaye nag du tax mu def lu ne ngir sàkk na dëkk fu ne sàkkal ko it yoonu fu ci jëm yàlla day créer ay conditions.